ñu ñaan jàmm ci dëkk bi ñun nag yàlla def na jàmm jàmm rek kii la ñuy dox opposé wuñu dañuy ñaanali président yéen bi ko yàlla yenn yàlla na yàlla oyof ci moom ndax jàmmam mooy suñu jàmm mais ñi ñu àndal di politique ku mel ni Ablaye Dieye buñ ko jàpp opposant Ablaye jàmm rek la bëgg bëgg lu dul jàmm dem njabootam bañ ne bu ñu demee jàmm gën dugg génn mu xam ne bu ñu demee problème day am te leen a woo ne ñëpp si leen nañu bàyyi naan diw da ndigal ndigal na yem ci diine ji dëkk bi bu muy metti dëkk bi bu muy metti muy muy muy def muy muy muy muy muy jël alalam di ko def ci nit ñi ana ñu fi nekk tey fan la ñu nekkoon moom rek nga doon gis ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo ngi woon ci dëkk bii ñun nag jàmm dong lañ bëgg ci dëkk bi dañuy bàyyi ku mel ni alaaji Daam Saaxo ak alaaji Ngañ Fay ñu wax ci di nuyu Oustaz Abdallah Diop ci turu mouvement religieux pour l'émergence surtout ñun dañu wax ndax da ngay génn fii léegi nga dégg naan imaam yi non non ay jullit lañu rek ñun responsabilité imaam yal nañ ci yàlla musal nit di ko jël di ko dékk bu xamee luy imaam ñun mouvement religieux pour l'émergence nekkoon nag ci élection yi deux mille dix neuf di jàppale président de la république loolu kenn du ko weddi mais nag ñun suñu ànd ak Abdoulaye Dièye dañ koy dëggal day dañ nit ku baax jël na ouest teg fi docteur Djibi Sarr ak aji jaata jël noor def Ousmane Diop ak Boubacar lii di suñu doom ab Abdoulaye Dièye nag jiital lépp yal na yàlla def jàmm dëkk bi daal jàmm nañ ci bëgg dinañu def tournée nag seeti kilifa diina yëpp ñu waxtaan ak ñoom ñu ne seen doom bi leen doon dimbale ëllëg daaw ak leneen ñoo ngi koy jël di ko traité comme opposant te ñun loolu bëgguñu ko ndax mi muy ci dëkk bi moom da nga fi fekk am na maire bu fi nekk togg na fi ay añ ay ay ay ndogu ay ay lii am fi bor ah an an Ousseynou Diouf boo na la yow Abdoulaye Diouf jox la ay ceeb nga yóbbu ñun dañuy wax yàllaa ñu tax ñun ñuy social la ñuy waxal social kat la ñuy waxal ana ko gën a dàq social ci dëkk bi dañ koo gis muy politique sociale mu Seydina Mohamed lay politique xam nga lu ma la moo ngi ci dëkk bi laaj Mor Gueye politique mais Seydina Mohamed lay politique nañ wax dëgg te dee nañ wax dëgg te dee loolu la ñu bëgg ma bàyyi alaaji daam saaxa ci ñun loolu la ñu bëgg dëkk bi daal soxla na ñi képp ki nga xam ne doon dimbale ndew doole yi nañ leen jàppale ñu ñëw kees fu mu jëm baaxul xam nga lu ma am na ñoo xam ne dañoo social ba dee bu élection bu ñuy tabee dañ leen a sànni lijjanti wuñ leen sax yàlla yàlla def jàmm daam eh, maa ngi tudd daam Sakho ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di nuyu waa Thiès Info ak waa Thiès 24 di nuyu Oustaz Abdallah Diop ak Thierno Dem Baye Ngañ Faye di nuyu sama jaam bi muy sëñ Mbay Sàmb ak ñi ma àndal ñëpp mu mel ne ñun li nu tax a jóg muy wattaqoo fitnatan laa tusibanna lazina zalamu minkum xaasa Oustaz Abdallah sunu borom bañ na ku yee fitna te ñun ay kilifa lañ dëkk ci dëkk bi politiciens yépp nekk sunu njaboot ñu bëgg ñu jàmmoo ki nga xam ne mooy président de la république muy monsieur Macky Sall jàmm la woote ci lañ ko gis wootewut wut violence kon ku bokk ci moom te koy wuyoo war ngaa woote jàmm foo mën a nekk ki nga xam ne nag mooy Abdoulaye Dièye yàlla dogal na li nu ko sant mooy mu viser ci li mu bëgg muy est bii nga xam ne yàlla dogal na fa la ñu dëkk te waxoon ca weer yële passé ne fas nañu yéen a jàppale ko ci ba léegi ca loolu lañ nekk kon nag lépp lu dul jàmm bu ko fi kenn indi xaaruñu ko ñun li ñuy xaar mooy ki yàlla ne yaay gañe kenn mëntatee nga gañe ki nga xam ne jëf na lu tax nit ñi voteel ko dinañu ko voteel le 23 janvier day passé te ñëwagul kon jarul kenn di xiiroo ak kenn Abdoulaye Dieye njabootu président de la république muy monsieur Macky Sall kon kenn mënu ko ca génne du tee nag nit ñi fii nu toll ku ci nekk am nga yëg-yëg ba nga bëgg a def waaye teewul président mooy seen kilifa waaye sunu dëkk bii di Thiès jàmm lañu fi bëgg jàmm lañ fi woote woote violance bu élection yi jeexee dañuy continuer àndandoo ko yàlla loo wax ne moo gañe ñu àndandoo liggéey ak moom kon bu fi kenn andi lu dul jàmm bu fi kenn wax lu dul jàmm xaaruñu kenn ci lu dul jàmm nañu jàmmoo te yàlla tax kon nag ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. man Alaaji Ngagne Faye bokk ci mouvement religieux pour l'émergence te toogook sama nawle yi toog ñoo yëkkatiti kàddu muy kaddu lan jàmm l'islam woote jàmm ni tubaab di waxe nag ñu rendons grâce au bon Dieu. subhanahu wa taala di ko sant bu baax ndax euh, euh, yëg mooy waral cant cant moo waral dolli ko ñu ngi koy sant bu baax moom buur bi nu may affiye ba nu mën a toog nii di wax wax ji nag dafa am lu ma lu ma war a fàttali tuuti nit ñi fàttali ko suñu bopp mooy de Ousmane Ngom monsieur Jean Collin Moustapha Ndiaye Papa Aliou Ndao ainsi de suite jusqu'à nos jours ba tey sa Seck son excellence ba tey fa tabarakallah mu bàyyi woon fii jatara les hommes passent mais les institutions demeurent kon nanu xam ne àdduna ni ko yàlla waxee wa tilkal ayaamu nu daawiluhaa bayna naas sunu borom ba daram taxawul te lu mu banti doon netti rek lay doon li ñuy woote nag ñun le mouvement religieux pour l'émergence mooy jàmm ku amul jàmm ndax dégg naa ci benn mu fassiroona mu ni ku amul jàmm foo fu jàmm ne di ko wuti sunu sunu xarit sunu sëriñ sunu rak wax na ko léegi ne aaya boobule la taqu fitnatan laa tusibanna allazina zalamu minkum xasha yàllaa ko wax waaw li tax ngeen war a moytu ay day laal ba laal ko ci bokkul ñun nag ki tax nu jóg di wax mooy Abdoulaye Dieye far ayu ñun moom la nandal Ablaye tey ëllëg ak ginnaaw ëllëg Ablaye rek ñun moom la ñu àndal Ablaye Dieye la ñu àndal contre nu kenn nag waaye far fi lañ ko fekk ñaari ginaar yu xeex sax yenn saa yi nga sa xel na ci ku weex gi loolu rek la bu mu bu tax ñu noonu nous sommes de sommes des adversaires yoo xam ne ëllëg dañuy dajewaat ci jàkk yi ñun nag li ñuy woote rek mooy jàmm xoolal imaam Dicko bokk fi waaye berki démb bi Mali yëngoo ah ko xeeb diina xam bi mu yëngoo rek la Mali rek la kon ñun kañ xanaa am nañ wàll kañ ci ci ci wax ci politique bi xanaa Ablaye nag ku nag. opposant la ngeen baal ma waxuloo dëgg bërki démb rek 12 millions la génn fii devant l'hôpital ni kenn du ko ubbi ko dul le président Idrissa Seck kooku opposant la ba noppi nag boo nee boo nee son excellence El Hadj Macky Sall Ablaye Reye lu mu am Macky rek moo moo ko gënal kon kooku ci njabootu président Macky Sall la bokk ku ni moo opposant la man El Hadj nga cee maa ko waxuloo dëgg nit ki nag ba la waaj waxoon da ngay ñeme dëgg ba keroog ñu leef ci bàmmeel ndax xul xaq mi rabbikum yàlla moom moom dëgg ci moom la dëgg ci moom la jóge ci moom lay dellu ab lay mouvement l'émergence religieux moom la ñu àndal tey moom la ñu àndal ëllëg bu amee ñu am bu ñàkkee du ñàkk deseeg yàlla yàlla du jeex asalaamaaleykum wa rahmatulah wa